17h. Euh, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróomi waxtu moo jot ca Medina Cheikh ca Ndar bisimila ci xibaar yi. li ci gën a fës daal na ci rek bokk collectif national bi ëmb étudiants yi yëngu ci wàllu nag science ak infirmerie euh, ba ci wàllu nag la ñuy duppee obstétrique ñoom nag dañu amal ab ndaje la ñu bëgg nag mooy ci seen wàllu système euh, tàggatu ñu daal leen indil wàllu LMD ndax jàpp nañ ne moo gën ci seen i carrière gën ci wàllu xarañ ci wàllu euh, santé Afrique kaw jant nañ koy daal di nag doxalee dinañ ci daal di jukki ci ndorteelu xibaar yi ak ndaje bañ ca daal di amal ni ki tey jile feebaru mbas mi di gën di law record beneen ñu daal di koy am daanaka ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci ay cas positif euh, jege loolu juróomu téeméer yi ñuy faatu itam fukk ak benn diggante démb ak tey yi fi nag yéeg ba fukk ak juróom téeméer euh, situation bés bi ak docteur El Hadji du Ndiaye dinañ ci daal di nag euh, dikk dina nekk itam euh, ponk ci wax sa bi ngeen mën ci àddu Thiès daanaka fa la mbir mi wullee ñaay zone rouge lañ ko daal di nag duppee ci wàllu wàllante feebar bi ndax juróom-ñaari fan ci weeru février ak léegi bi daanaka juróom ji ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay cas communautaire daal nañ koy rek amee Babacar Ndaw gestu na li tax mbuur itam li ni mel lañ fa daal di nemmeeku waaye la ko waral mooy eh, jëfe mesure barrière yi daal te na leen lool Moustapha Sall itam eh, daal na ci amal ab eh, gëstu dinañu desandi ci wàllu nag vaccin bi nga xam ne nag programme élargi vaccination sax ñoom ñu ngi daal di waajal seen bopp ngir daal di xool arminaat bi ñuy tëral ngir mbir mi mën wàlli siyaan ci réew mi yëpp vaccination bi nag nañ ko daan amale saa su ne lañ ko bëgg defee ne ñu daal juróom-ñeent fukk yoo jël ci téeméer bëgg nañu mu daal matale ci nag vaccination googule ñii nangu ko ñii daal di koy nag bañ gëstu geek Abdoulaye Diop ci biir xibaar yi ponk lay doon ci wax sa xalaat bi di ngeen ci mën a àddu ci kanam tuuti lay doon askan wi itam ak euh, coow yu bay bari ñuy faral di nemmeeku euh, ci suñu pen penku bi ci mujj mooy rek mbirum euh, Ousmane Sonko naka ngeen di jàngatee rek événement yu bari yi faral di ñëw saa su ne benn daal di rek daanu ji daal di topp riir ma jàll ci beneen ak fa mu ñu daal di nag jëmale mooy doon beneen ponk wax sa xalaat bi ci njeextalal antenne bi nañ ci toftal tàggat yaram Alassane Wade demoo ne ci sottandikukaay bi faram-fàccee gi nees lay doon. Adama ci kàddu gi dañ koy daal di nag doore ak law bi nga xam ne feebaru mbas bi mu ngi koy law ci mim réew diggante démb ak tey fukk ak benn ci ay nit daal di ci nag euh, faatu record bu bees bi nag mooy yëf yi dem na ba jege rek juróomi téeméer ci nit ndax ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci cas positif la ñu daal di xayma diggante démb ak euh, tey moo waral sax euh, ci xayma pourcentage mu daal di yokk ndax dem na ba fukk ak tombal yoo jël ci téeméer am na yeneen ñaari téeméer ak benn benn yi nga xam ne nag nee ñu euh, wàllante fa ñu ko jëlee xamuñu ko di transmission communautaire euh, jamono ji patients yi nga xam ne ñu ngi leen di traité euh, war nañu toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak fukk juróom benn juróom fukk juróom benn yi daanaka ñu nga ca réanimation El Hadji docteur docteur El Hadji Mamadou Ndiaye di dellu siwaat ci xayma bés bi moom ma fare ca ministère santé ñu déglu ko ci micro Sud FM ci ñaari junni ak juróom fukk ak juróom-ñett test yi ñu def ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaar téeméer ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ñi xam ne ñoom la tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ko jëlee wala ki leen ko wàll ñu seen lim ni la tëddee ñaar fukk ak ñeent ci Louga ñaar fukk ak ñaar ci Mbuur fukk ak juróom ci Dakar Plateau Kaolack ak ci Thiès ci Rufisque juróom-ñett ci Kër Massar juróom ci Diamniadio HLM Grand Médine Liberté 6 ak Point E ñeent ci Médina Wakaam Pikine Patte d'Oie Salemata ak Zac Mbao ñett ci Bargny HLM HLM Grand Yoff Xombol Mermoz Ndofane Scat Urbam Sokone Thiaroye ak yëmbal ñaar ci cité Takko Koki Diourbel Fatick Guinguinéo Liberté 3 Liberté 4 Linguère Matam Parcelles Assainies Petit Mbao Sangalkam Sicap Baobab Touba ak Yarax benn ci Amitié 3 Bentali Cambérène Cité Asecna Cité Comico Cité Gàddaay Colobane Daara Daaru Musti Diamaguène Jëppal Fann Gibraltar Guédiawaye Hann Bel-Air Kaffrine Kédougou Kër Mbay Fall Kër Njaay Lo Kolda Koungheul Maka Koulibantang Mamel Ñaari Foire Podor Popenguine Richard Toll Saint-Louis Sakal Sébikotane Tamba Vélingara ak Yoff ñaar ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci malade yi entrée woon hôpital ak ñi ñi topp ci biir kër yi wér nañu juróom fukk ak juróom benn malade ñoo nekk réanimation fukk ak benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb alxames fukki fan ak benn ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaa njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñeent ak juróom téeméer ak juróom-ñeent fukk wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñoo génn àdduna mu des ñeent junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ci malade ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ci la ñuy daal di nag desandi ci wax sax laa di ngeen ci daal di nag addu gis ngeen lim gi na muy daal di nag yokkoo diggante ñetti fan yi le ñaari fan yi wees daanaka bu ci ne fukk ak ñaar tey jii fukk ak benn muy fan fanweer ak juróom diggante ñetti fan yi daal di faatu ci mbas mi yëf yaa ngi tàmbale nag euh, ragal loo ñu bari seen jàngat ci kanam lay doon Thiès foofee itam zone rouge la ndax euh, wàllante gi dafa daal di jéggi dayoo euh, ci juróom-ñaari fan ci weeru février beeg léegi ne ñu war a toll ci ñaari téeméer juróom benn fukk juróom ci ay communautaire daan nañ ko fay rek euh, nemmeeku feebar bi nag euh, muy gën di alawtiku euh, rawatina barabu fajukaay yi fa daal di nag nekk jàpp nañ ne nag wàllu relâchement bi bàyyeekoo ci jël matuwaay yi bokk na ci li ko daal di waral Thiès Babacar Ndaw mbas mi mi ngi wéy di def jombe ci diwaanu Thiès misaal bi si juróom-ñeenti district yi fi nekk xayma yi ñu def diggante dimanche bi ñu génn ak aljuma tey ji ñaar téeméeri doomu aadama ak juróom benn fukk ak juróom am nañu jàngoro ji si contamination communautaire xamuñu fu ñu ko jëlee si lim boobu nag district sanitaire bu Thiès jàpp nañ ne téeméeri ak fukk ak juróom-ñaar yi moom moo ko am waaye li si gën a jaaxal nit ñi si bésu alxames jëmb bi juróom fukki cas communautaire am nañ ko leneen li diggante juróom-ñetti fan ci weeru janvier ak juróom-ñeenti fan ci weeru février bi diwaan bu Thiès am na juróom fukki doomu aadama ak juróom yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan si mbas mi téeméer ak fukk ak juróom-ñett si xaaj bu njëkk ba jot nañ si ñàkk seen bakkan bu ñu xoolee si lim bi ëpp nañu téeméer ak juróom fukk ak juróom ñoo xamante ne jamono ji diwaanu Thiès am nañu ay lorange si lim boo xam ne ëpp na ñetti junni doomu aadama yoo xam ne jàngoro bi laal na leen ñaareelu vague boo xamante ne ñu wax ne moom moo gën a doy waar waaye si jamono jooju bàyyeeku bu tar la ñu demeeku fi nga xamante ne moom mooy biir Thiès du benn matuwaay boo xamante ne gis nañ ko si kilifa yi rawatina ak comité bi saytu wàllu xeexu mbas mi fii si département bu cees rax si dolli maire yi ak conseil départemental gisaguñ leen benn jumtukaay boo xamante ne def nañ ko si ñu ngi wax ne budget yi moo duggagul rax si dolli maire 60 millions yi nga xamante ne war na ko jox tailleur yi si seen desul xaalisu masque yi fayagu leen ko moo tax tailleur banque seen loxo leneen li protocole sanitaire bi ñuy wax mel ne dañ ko néewal doole fi nga xamante ne moom mooy Thiès du fenn foo xamante ne daal gis nga nit ñi gëdd bañ ko war a jox mi ngi am misaal bi xew xew kër yi muy ay cérémonie familiale ba léegi mi nga am ngénte yi takk yi dëj yi nit ñi ñi ngi dajaloo ba léegi te loolu de kilifa ñi nga ne ñoo yor wàllu kaaraange yëg nañ ko nit ñi ñoo nga fay dem bis tata yi ba léegi ñu ngi def surcharge mu fees dell mel na ne jamono ji way karange yi coow pomburkaat ñu bari jàpp na ne mu leen ëppal solo ne bés bu ne ñu ngi fay xëy waaye it sax di jàpp ay doomu aadama foofu di leen convoqué leneen li marché bi nga xamante ne marché yi nekk Thiès préfet jëloon arrêté fukki fan ak juróom-ñeent si weeru janvier ba léegi jàpp na ne wàcc 6 heures bi moom kenn respecté wu ko leneen li gën a métti xolu askan bu Thiès benn bërëb bu ñuy faje muy CTO bi nekk ci l'hôpital régional El dafa débordé ñaar fukki lal ak ñaar yoo xamante ne pour diwaan bi yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy fajkat yi naqarlu nañ bu baax a baax seen ñàkk jumtukaay nee nañu koppar yi wax si mbas mi moom dañu koy dégg rek ba tax na tey jii loolu sax moom moo gën a méttil seen liggéey ba tax na faat bi ñu nemmeeku nañu bare ñu ngi ñàkk seen bakkan tey jii war nañu xoolaat taxawaay bi si xeex bi nga xamante ne war nañ ko xeex mbas bi ci Sénégal rawatina fi nga xamante ne moom mooy Thiès Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ñu des ci wet gi mbuur foofu itam ka contamination di wàllante bi gis nañ ne euh, la muy tàmbalee bare jéggi na dayoo lu war a toll ci ñeen fukk ci ay euh, nit ñu amee euh, mbir mi ci wàllu nag cas communautaire ci ñaari fan yi nemmeeku nañu ko ba ñu jàpp ne sax amul lenn lu ci bettee ndax nag foofee geste barrière yi di matuwaay yi ñu war a jël nag defuñu ko askano sax ñi ci bari lañu jàpp mooy xëy na vaccin bi bu ñëwee daal mu mën ci cee saafara ci feebaru mbas mi mbuur Moustapha Sall. mbas mi mi ngi wàllante bu baax a baax fii ci diwaanu mbuur te moonte day askan wi boo leen xoolee li nga xamante ni moom la kër docteur yi digle duñ ci def dara. muy seetlu bu metti nag ci ñenn ñi. mbas mi fi mu toll xaw na doy waar. ci biir Sénégal suñ dëkk bi Mbour moo gën a tax ñuy wax. moo waral ñu jël Thiès boole ko ci loolu. ndax boo demee marché Mbour. wala nga dem garage da gis ne ñi takkul masque ñoo ëpp ñi takk masque. loolu nag mooy waral transmission communautaire bi. di gën a law corona bi nag lu doy waar. lu doy la parce que corona bi sax doyul waar yaakaar naa ñun ñoo doy waar. corona bi ku nekk xam nga midi pile naaj bi tàng jër ngay njàq ne gisuma jant bi kenn mënu ci dara mais yaakaar naa li ñu wax mooy takk mas Souleymane Ndiaye mii moom bërëb la yor di centre bu nga xamante ne ni dafay dalal ay ndongo ay taalibe di leen dimbaleeg yu ni mel waaye fii képp ku fi dugg dey da ngay dëppoo ko li kër docteur digle. ñun ñu ngi ci loolu yooyu la dox am na fu ñuy raxase loxo infirmerie kenn du fa dugg doo takk masque salle de classe bi ñun dañoo confectionné ay masque ñuy ñett masque ak geneen masque jetable bi duñ fi bàyyi le port de masque dañ koy rendre obligatoire par force xale yi ñu amal contact c'est des porteurs sains ñun am nañ chance bu affaire yi commencé ñu dem seete ci ñi responsable covid bi fi mu waxtaan ak moom mu jox a mooy parce que protéger suñu bopp mooy protéger xale yi mooy protéger la ñu wax mooy ñàkk mën naa nekk benn ci saafara yi ngir jàngoro ju jóge fii ci mim réew ñàkk bi man njariñ laa ci gis duñ ay mag lool nag waaye gis nañ fi poliomyélite gis fi yeneen i ñàkk yoo xam ne moo ñu sauvé ba tax tey nekkuñu ay waaye laago ñàkk yooyu mooy ñàkk yi rek buñ nee ñàkk bi boo ko ñàkkoo moom moo lay protéger ci coronavirus war nañ ko gëm ndax mun dina am lu mu def ci suñu xel ba tax liñ daan ragal dootuñu ko ragal ñu mën a dem ci suñu yeneen i yitte ñun ko ci tukki da ngay am doom dinañ ko ñàkk xam nañ le programme élargi de ñoom poliomyélite ñoom rougeole ak yeneen nag yeneen te xamuñ ñenn ñàkk la ñu ci doom mais wóoru nañ ko koy ñàkk donc confiance boobu am ci ñàkk boobu mooy am ci biir rek ñàkk bi bu ñëwee coow lay bëri mais ñi bëri na déedéet dina ñàkk parce que dina dem ba ku bëgg a tukki di nga ñàkk dina bokk ci affaire bi te coowu ñàkk yi yaakaar naa ñi xam diñ doon wax coow li du bëri. donte couvre-feu am nag état d'urgence teewul feebar bi mu ngi jaaba jonge ndaxte mbuur li muy am ci cas communautaire bari na lool lu ëpp ñeen fukk ci li matul ñaari fan fii ci diwaan gi. Moustapha Sall Mbour Sud FM. Euh, ñàkk googu ñu daal di ci nag des ngir xeex mbas mi responsable yi fare ci euh, PV mooy programme bi ñu teg ngir wàllu ñàkk gi ñoom nag nee ñu euh, la ñu bëgg mooy fexe ba yóbbu vaccin bi mu mën rek dem fu waaye nekk fii ci mim réew fii ak weeru février bi système bi nga xam ne moom la ñu mës a doxal nag ci wàllu ñàkku moom la ñuy rek indiwaat objectif bi nag mooy fexe ba juróom-ñeent fukk yow jël ci téeméer ci askan wi ñu daal di leen ñàkk ba tax ñu jàpp ne li ne mel dina mën a tax euh, tiitaange gi yekk ak ragal gi mën wàññeeku Babacar Samb. gannaaw ba njiitu réew mi Macky Sall ci conseil des ministre bi daal di weesu sàkko ci jëwriñ ji ñu denk wàllum wér gi yaram ñu daal di baral procédure yu jëm ci ñax wi ngir xeex mbas mi la di Covid 19 responsable yu programme élargi de vaccination daal di nañuy taxaw ci li ni mel tëral ba noppi ay pexe ngir jotale ñax wi ci réew mi yëpp fileek njeexitalu daldi ne docteur Ousseynou Badiane moo di coordonnateur pour programme élargi de vaccination. ñoo ngi ci yaakaar nañ ne délai bi mu joxe noonu fii ak février bu dee vaccin yi ñëw parce que vaccin yi ñëwaguñ ñun dina fekk ñu pare pour mën ñi nga xam ne nii ñoom lañ ko jagleel. xam nañ ñan lañ war a ñàkk fan lañ leen war a ñàkkee ak nan lañ leen war a ñàkkee loolu déjà. Euh, leer na parce que Sénégal quand même am programme élargi de vaccination comme ni nga ko waxee donc programme bi existé na donc foo mën dem ci Sénégal di nga fa fekk ñuy ñàkk di nga fa fekk matériel bi ñu war a ñàkkee di nga fa fekk ñàkk yi di nga fa fekk ay nit ñoo xam ne tàggat nañ leen pour ñàkk yooyu donc ñooñu la ñuy utiliser pour que euh, ñàkk yi su ñëwee ñu mën a ñàkk ñi nga xam ne ñoo ko yellool. bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bi lee mbébét gi moo di fexee ba gën kaa néew téeméer boo jël ci population bi ñu daal di ciblé juróom-ñeent fukki yi daal di koy jotee. waa objectif bi mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy ciblé maanaam personne prioritaire yi muy xam ne nekk ci bërëb fajka fajukaay yi ñi nga xam ne nii dañoo am at yu ëpp juróom-benn fukk ba pare am feebar bu nekk ñoom la ñuy euh, pour dans un premier temps ñàkk donc ñooñ jàpp nañ ne suñ téeméer boo jël ci ñooñu war nañ cee ñàkk lu mu bon bon juróom ñeent fukk ci lim boobu. waaye foog ñu daal di taxawal aw communication bu mucc ayib buy lëkkale ñëpp ngir ragal gi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci askan wi mën a deñ. de toute façon bu ñàkk liggéey dañ def communication sensibiliser nit pour que ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo ñàkk bi ñu mën a accepter ñu leen ngir feebar bi. Euh, cas wàññeeku ak ñi nga xam ne di fàttali ne ba fi mbas mi duggee ba suñ joon yàlla tey lu tolloox juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ci ay doomi aadama daal dinañ ci ñàkk seen ab kenn ci lu ëpp fanweeri junni yu ko daal di amee gile feebar dem ba gàllankoor kom gi ak nekkinuk askan wi ñu daal di ci desandi ndax sàkkuteefu njiitu réew mi sàkku ci gouvernement bi mu daal di jël matuwaay yi bu ko defee lancement campagne euh, vaccination boobu ñu mën koo daal di nag amal fii ak weer bi nag di euh, dee ngir euh, li ni mel <laughs> euh, fexe nañu daal askan wi ku ci ne ñu daal di ko ko yëgal waaye itam xam naka la ñuy daal di dundee mbir moomu dose yooyu ñuy def ci wàllu vaccin yi ndax noppi nañu ngir jël ko wala déet ñenn ñi jàpp ne xel xalaatu ko pour ñeneen ñi nag faaw ñu def ko bu ñu bëggee feebar bi mën fay jógee Abdoulaye Diop. tur bi ay atam weesu ñaar fukk mu yor cigarette ci loxo bi ba ñu ko laajee na xam El noppi na ngir ñàkku lii la tontu. man déedéet man moom vacciné ma moom mënul nekk lu tax mooy dalul sama xel daal dafa dalul sama xel ndax xaw ma lan laa si jëlee xaw ma xaw ma après lan la may jural comprendre nga donc nit ki boo koy defloo benn affaire li nga koy defloo war nga xam lan la siy jëlee ban ban résultat la siy am après mais ñàkku bi ñàkku bi man xaw ma lan laa si jëlee après dalul sama xel daal vraiment. ay njàkkare yu mu daal di bokk ak Serigne Mbacke Diarra moom ne amul benn no non non pareegu moom franchement parle pareegu moom ndax euh, boo xoolee ni ni ñuy dégg rumeur bi à chaque fois ñuy dégg ñuy wax fi bii moo gën a baax wala bee moo gën a baax tamit loolu day tax ñu ne inquiété wu ñun Sénégalais yi. dama nag franchement parle man sama bopp nekk tamit doo vacciné wu ndax xamuñ naka la xamuñ ni mu demee wala amu confiance franchement amu confiance moom ci loolu ginnaaw ay simili yu ñu dox ñu daal di tase ak Mamadou Sarr atam weesu juróom fukk moom nag ne noppi na Ah, ah kon ñu jaajëfal ko moom Abdoulaye eh, Diop ci mbir moomu fàttali na ci ponk wax sa xalaat bi eh, di ngeen ci mën a àddu ci kanam tuuti lay doon ñaareelu pàcc bi wàllu tàggat yaram tàggat yaram bi ñu daal di koy nag eh, door ak. coupe d'Afrique bi nga xam ne nag euh, club euh, Sénégal yi war nañ ko daal di nag tàmbale ci week bi football boobu nag sorti bu njëkk Teungueth FC ci samedi bi euh, ci wàllu Ligue africaine des clubs champions Teungueth FC war na nag dem ca Tunis ngir daal di nag laale ak Espérance bu Tunis confiance bi nag nee ñu mu ngi fi président bi daal di nag teg ay ambition ma ngir rek Sénégal mën cee am ndam kii di entraîneur bi. neen nañu daal teg nañu seeni nag stratégie bu ko defee ñu daal di nag génn ci phase poule yi jàngatleek leeg Moustapha Sall. Tëngéej FC di football ci match de poule Ligue africaine des champions samedi ji di gënnam bu njëkk waa Tëngéej di dem ca Tunisie di janoo ko ki nga xamante ni mooy Espérance de Tunis mu mel ni nag ñoom seen lépp yemb na. xam nan fi ñuy teg seen tànk bu ñu sukkandikoo ki nga xamante ni mooy seen président di Babacar Ndiaye yi ah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla xale yi ñu ngi màgg di tukki nànk-nànk routine bi def nañ exploit déjà dugg phase de poule ci équipe boo xam ne amagul 10 ans léegi nag liggéey bi yemul foofu da ngay dem nga xool ba fan nga mën a yem léegi boo yemee foofu tamit da ngay dellu si nga liggéey localement liggéey localement day tax déwén nga jéem ko fekke ambition phase de poule moom déjà moo doon balaa ngay dajeeg Raja lu ne dégg nañ ko ñii demuñu woon daaw ñii forfait nañu ñii mënuñu dem dugg nañu mais doo doylu ci loolu da ngay continuer liggéey te xam tamit ne liggéey yemul foofu liggéey football moom di nga am défaite tey suba nga perte mais da ngay gën a continuer tabax. ambition yi nag mooy six match la comme li ñuy wax rek c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens xëy na tey ñu teg mbalax neexu la suba salsa wala leneen mais dangay ngay patient. ñu jàppale xale yi xam ne du ay xale yi tëngëj kese ñii xamuñu dara mën nañ dara. ay jeunes lañ suñuy rakk lañ suñuy frère lañ ñu motiver leen ñu dem lu ñu mën a am Tunisie muy victoire nul défaite mais ñun demuñu fa pour jëli fa défaite li des nag dem ba jeex lu des ñu dellu si waat joué ji waat ak Zamalek le Maroc faaw ñu def ay pexe jongante bu nekk ak ni ñu koy waajalee ngir rek daal di mën a génn ci poule bi lee Youssouf Dabo mooy entraîneur u Teungueth FC. continuer di liggéey rek yi nga xamante ni moom moo nekk imperfection. ñu gën ko corriger pour que ñu gën a mën a am taxawaay samedi prochain fële si Tunis. mu du ma wax ni miin nañ ko parce que mosunoo joué moom mais am nañu ay information si moom yoo xamante ni mën nañ ko utiliser pour match bi ñuy daje ñoom. ci tour bi. oh non tour bi nii genre tournoi la mini championnat la am nga. Euh, da nga am six match yooyu def ñett sa dëkk ñett dëkku jàmbur léegi il faut nga am ay stratégie yoo koy jouer rek pour bañ a parce que du ay match përëx përëx waaye ko nga ànd ak dal xam bu baax li ngay def. mu nekk bu njëkk Teungueth FC bokk ci phase de poule poule bi nag di poule de mu bokk ak ñu nga xamante ni yàgg nañoo ñëw ci jongante bi lee ñëpp nag bokk ci réewu naar yi. Espérance bu Tunis Zamalek bu Caire ak Mawlidia bu Algérie Moustapha Sall Mbour Sud FM. Moustapha Kopp Kaff ngir eh, dernier tour cadrage bi platinum bu Zimbabwe di dalal jaraaf bu ndakaaru eh, match bi nag dinañ ko daal di amal ci dimanche gi Sénégal yi nag ñoom eh, ñu nga foofu ca Orea depuis foofu ca Harare ci alxemes bi ba léegi ñoom nag ne ñu yegsi nañu ak jàmm donte sax tukki bi gudd na waaye itam lépp daanaka yëmb na bu ñu sukkandikoo ci kenn. kenn ci membre encadrement bi di amadu Diop booy bandi jokkoo nañu ak moom ca foofa ca Harare ak El Hadj Malick donc voyage bu gudd la nag. gudd na comme dañ si jotoon waxtaan suñu biir waxtaan si xale yi préparer leen compétition bi mu ngi soog a door. donc euh, vu préparation bi ñu njëkk def Dakar si terrain bi beneen compétition moo ñu doon xaar mooy voyage bi donc loolu dafa bokk si si si li nga xam ni moom la ñu war a fekk si fii donc loolu yëpp si euh, compétition bi la bokk donc euh, préparé nañ si xale yi ba daal alhamdulilah egsi nañu ak jàmm ak salaam fii si si Harare te fii ñu nekk nag wax dëgg yàlla équipe bi génnee na par le biais du, du président Cheikh Seck bi ñuy saluer équipe bi mu ngi si d'excellentes condition de préparation parce que fii ñu dal nii si hôtel bi hôtel résidentiel la euh, quartier bi mu nekk quartier résidentiel la wax dëgg yàlla amul bruit ñun rek si suñu hôtel wax dëgg yàlla toutes les conditions daal réunir na pour que ñu atteindre suñu objectif compétition bi commencé na depuis Dakar continuité la rek comme dañ ko préparé woon rek donc euh, li ñuy wax ni dafa bokk si yoon bi dékku nañ ko yàlla indi nañu ba ñu egsi si jàmm donc ñu koy sant waaw euh, équipe bu platinum bi euh, yi ñu jot a xam wut doon wut si ñoom yëpp yàlla def nañ ba am nañ ko bon am nañu seen quelques vidéos am nañu yenn yu ñu jàng su ñoom mais li ëpp solo si si genre compétition bi mooy yow ni ngay ni ngay dikkee quoi ni nga yow li nga li nga li nga préparé woo ak li nga takk pour pour sa match donc euh, loolu équipe bi daal euh, waa taayam daal euh, mun nañu wax ni daal ñu ngi ci te fii ak dimanche daal foog nañ nii lépp dina dina fin prêt waaw ah, ñu daal di desandi nag euh, ci euh, wàllu euh, championnat bi ndax nag coupe d'Afrique match yooyu lee tax na ba Tëngéej FC ak Douane Gorée ak Jaraaf yi waroon nag bokk ci septième journée bi ñu daal di koy dàqandi ba benni jamono bu dee juróom-ñaareelu journée bi nag ci dimanche yu kon lañ koy daal di amal diggante Pikine ak Sineps jeexale ko nag ak match Njàmbur ak Jàmbaar diggante Dakar Sacré-Cœur Casa Sport Stade de Mbour ak Mbour Petite Côte itam Génération Foot. ak euh, ñaari euh, tali bu dee coupe euh, ligue match yi dem ci ligue 2 bi nag programme bi nii la tëddee ba tey ci septième journée bi ak di samedi geeg di suba samedi Demba Diop di laa rek Kër Madior ñu jeexale ko nag ci dimanche gi diggante ISO ak EG Fatick GFC ak Port Linguère Africa Promo Foot jamono Fatick ak Thiès FC Amitié FC ak Duc Sonacos mooy laale ak Renaissance bu nekkoon xibaar yi ci wàllu tàggat yaram pàcc bu mujj bi ñu ubbi antenne bi.

88 628 98 98 jotaay wax sa xalaat record yi ci wàllu nag mbas mi vaccination bi ñuy waajal ak ku ci ne na nga cay demee bi ci des mooy événement yi faral rek di succédé euh, ci réew mi indi ay coow te du jur lu bari naka ngeen koy jàngatee 88 628 ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama la Chérif. Chérif waaw ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. di ñaan borom bi subhaanahu wa allah azza wa mu aar Sénégal mhm. aar Amérique mhm. aar adduna bi yëpp mhm. Oustaz Adama man sénégalais laay woo di leen ñaan di leen prise ñu bàyyi xel ci mbas mi mbas mi man personnellement dafa décimer sama famille man personnellement démb démb démb rek sama rakku yaay bu mu bokkal ndey ak baay moo génn àdduna te li ñuy wax président Macky Sall lan moo tax ñu ne ko président day am yërmande ci ci ci ci ci ci ci kii yëm problème gis nga bu fekkee ne crise dafa am dangay ngay jël si sa àq nga delloo ko peuple bi man loolu laa ko meree parce que Abdoulaye Wade bi problème inondation amee dafa ne problème mu sénégalais yi pour ma won leen ni dama leen di dimbale damay cancel institution yi yu bare dama koy dindi alal googu ma def ko ci ñoom démb sama tante bi mbuur dañ ko wër yépp laa lay wax ne amuñu oxygène mhm. clinique yépp a fees biñ koy dagale dawale indilu ko dakaar ci yoon bi la eh, eh, ci ci avion lañ ko jëlal mais ci yoon bi la la la la dogee. Hmm. oxygène manque d'oxygène. Hmm. te loolu yëpp alal moo koy def. Hmm. président Macky Sall yërëmal yërëm yërëmal peuple bi. yenn ministres ak seeni i seeni yi njaboot yi bu ñu feebaree bitim réew ngeen di faju dee. sénégalais yi mën nañu faj seen bopp. mais alal mooy faju waxuñu yow i rey nit ñi de mais mën nga leen joxaat benn espoir de bi un an wala deux ans encore hmm. parce que hôpitaux baax bu ñu leen tabaxee dafa matériaux yi ñu fa war a def yépp mën nañu seet nit ñi hmm. mu ngir yàlla ak yonent bi gis nga peuple li koy tabax du ay strat ak yooyu hmm. éducation ak santé mooy nañ ma dimbale ngir yàlla barki démb balaa lii ma lay wax nii rek sama benn cousine ak yaayam benn bés la ñu dee ci benn bés bi. ci feebar bi. ci feebar bi. Mhm. ci benn bés bi la ñu dee. ma mhm. ne mhm. président Macky Sall yërëmal peuple bi. yërëmal peuple bi. jëlal alalu réew mi nga def ko fi ñu ko war a def. maa ngi leen di ji maa jéggalu ñëpp nag quoi. xam nga bokk na nag moom moo ko moom moo ko def moom mooy rey nit ñi mais mën na dimbale peuple bi nga xam ni que dinañu mën a de plus. jërëjëf d'accord euh, ko ci woote bi mbokk moom di bitim réew ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko ci 88 allo. waa Birama na euh, ngi fi. maa ngi lay nuyu ñu ngi lay fay. di siyaare bu baax sama ñetti ostaas yow di ñaan gudd fan wér xéewal ak ndam gi yaatu yan leen ko yàlla defal. Mhm. te ñu yokk ñaan yi bu baax a baax rek. ci mhm. euh, mbas mi comme mi ngi si surtout nag côté Thiès ak Mbour moom bari na fa lool lool yokk gaaw na ak Louga. Mhm. fan yii moom Louga moom seen kaa yi dafa xaw a bari daal nañ jëlaat seen i matuwaay. te jàpp ci digli kër docteur wax ñu gën a teg moom ku ko déggul na la ko di jot. ñaani kilifa yi joxe ñu joxe it ñu ñu moom yooyu yaar daal bu ñu sàmmoonteeg moom yaakaar naa ne suñu borom dina gën a delloo gannaaw mbir mi suñu borom moom li mu yor bari na ko ko ñaan rek la bëgg kon bu ñu ko ñaanee mbas mi war a dellu gannaaw hmm. suñu borom mën na cee def sutura bon réew mi nag dafa nekk réewum sa développement moo xam ne si ah, jàngoro ju mel nii dafay xaju bu fi daanu see fenn fu ne nga war faa soxla oxygène du ñàkk ay barab yoo xam ne dañ koy manqué te parce que fa yi malade yi dafa bari hmm. kon nag loolu bu moom nañ xam ne président lim man lépp mu ngi ko ci def guddee bëccëg suba ngoon vraiment kenn ku ne xam ne ci njàmbaar ministère de la santé toogut guddee bëccëg suba ngoon ak coloborateur yi nga xam ne ànd ministre bi ànd naag ñoom ñu mel ne ay Saliou Faye Daaf ak ñeneen ak ñeneen ko jàppale bu dee bëccëg suba ngoon ñu ngi ko xelal ci biirum jàngoro ji ñoom ñëpp dañ cee laxasaayu vraiment nelawuñ sa askan bëgg benn feebar di fa dugg wala ak ndóol di fa dugg ndax lu fa dugg rek sa cooro lay doon yow bi kon donc nan maas rek ñaan yàlla delloo ko gannaaw kenn bañ cee ŋàññi kenn kenn bañ cee xas kenn ñëpp bëgg mu jóge fi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ku ne ci gouvernement bi ku ci nekkul kon moom ne yàlla na ko fi yàlla jëlee ku li nga xam ne si mooy mbirum ñett yi mi ngi ñu ngi koy parafaari mi ngi ñëw na nit ñi ànd ko dal ànd ak seen sago ànd ak seen xel amul kenn kuy jiite am réew di leen jox loo xam ne lu leen di lor lay doon parce que boobaa loraanga ji sa kaw lay këpp ndax askan moom dal bu ñu sonnee xam ne seen xel dal ci loolu bu ñett yi ñëwee ñu ñàkku te gëm yàlla ak jullit da ngay gëm yàlla gëm yonent bi Seydina Muhammad alayhi yi ñu jiite suñ jaar ba ak si benn loraange du dugg ci réew mi nit ñi soob yàlla daañu faju ah loolu di jàngatam ñu xaar beneen auditeur jël ko bitim réew 33 841 22 33 Alpha Sane ñu jël keneen allo. allo allo allo waaw. waaw allo Oustaz. waaw. Oustaz Mboude moo lay woo Oustaz tamit ci xomal gaar. waaw El Hadj Oustaz ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu Alassane Wade sa technicien. Mhm. di nuyu Chérif moomu génn léegi di nuyu bokk yëpp. waaw. Oustaz. waaw. li nga jàngoro ji. Mhm. président Macky Sall moomu ko. andiwu ko fii lu am ci àdduna wërngal këpp la hmm. man xam naa bëgg hmm. sunu fii ci biir réew ministre de l'intérieur hmm. mu def wala mu wane aw yoon ni armée def ca Casamance armée Sénégal la def ca Casamance la ko yëkkati na yëkkati alkaati yi ak ak gendarme yi ci dëkk bi parce que dëkk bi dafa am ñoo xam ne danoo lànk danoo bañ ñi bañ nag ñoo koy wàll ñi ñooy sàmmonte ak tegtal ak ndigal waxtaan wax dëgg ca danoo bañ danoo lànk bëgg yàq senegal mais Sénégal am na jumtukaay ku am kuddu kay war comme danoo bañ na nanu jóg defanteeg ñoom moo gën ba lu yàq Sénégal jàngoro ji moom yàlla ko wàcce ci àdduna ku ne di daw daw mooy tax a mucc ñu lànk bañ a daw léegi ñi daw ñi daw lu ñoo leen koy wàll mani nanu génne police ak gendarmerie ñu defanteeg ñoom ba mu saf lii rek moo koy faj wasalaam. mu ngoog loolu mooy gis-gisam euh, mbokk moomu woote ca xombal beneen auditeur lañuy jël ci liñ bi ba tey ñu daal di taataan xalaatam ci 88 allo. salaamaaleykum. salaam waaw. Adama ñoo ngi lay delloo siyaar waaw. ñu ngi ci jàmm. na ngi lay nuyu ak lu ko waral. mooy. maanaam dañoo amagul ay kilifa yu mat kilifa. Hmm. waaw parce que kilifa day moytu ay détails. Hmm. di doxe fayda respecté ñu nga jiite. Hmm. mais ñoom toujours dañ dul bàyyi xel askan bi te askan bi ñu jàppee nit ñu wéra di toujours ñu ngi ci di leen gasal ay reen ñu leen faje dafa am loo xam ni ci dëkk bu amee dëkk boobu du jóg ci coow ak kilifa mu muy doxee rek. noonu la kilifa ëpp askan wi mel. dañuy bëgg vingt quatre heures sur vingt quatre ñuy politique. dañ leen fal pour liggéey. nañu seet liy doxal kan wi di développé réew mi ci kanam. mais pas nii ñuy defee toujours ay politique politique seen toujours ñuy def ay politique politique seen dañu dugal ci ay gaan yoo xam ne kenn xamul. su suma gaan yi ñu mujjee ñoom muy ay fitna jigéen yi. parce que démb ci ay rango. démb yi ay jaari taw tay ji ay aji saar ak yeneen ak yeneen yeneen suba beneen la ñu indiwaat faaw ñu ni jiita doon ay nit ñu jël seen responsabilité mat te xam ne li leen sant mooy liggéey ak kan wi loolu mooy gën a jaadu koy ñi nga xam noonu def njub di ay débat yi kenn xamul di tuumaal ay nit ak yu kenn xamul donc loolu daal jëmewuñ sonn doon doomu aadama mm. ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñu taw taw yow tey siir nga bëgguñu sori ci seen mi daal jërëjëf Diop salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ok Alassane mbokk moomu ñu jaajëfal ko ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko euh, jotaay wax sa xalaat ñu jikko ci ñaari ponk wàllu recordu Covid bi waaye itam allo. allo salaam Cheikh maa ngi leen di nuyu di woote réew. ñu ngi lay fay alaaji wa waaw di wax ne gis nga mbas mi Sénégal sénégalais yëpp d'accord nañ ak Macky Sall ànd ak moom di xeex mbas mi ne mbas mi du gaawati jógee Sénégal ñu ko yàlla nag bu ñu sañoon mu jógee fa mhm. Macky Sall moo andi problème bi yëpp Sénégal fexe ba nit ñi commencé waa dajaloo nit ñi seen xol yi jógaat Macky Sall dafa sonal sénégalais yi sénégalais yi dañoo sonn aadama dañoo xiif boo ñëwee Sénégal nit ñi dañoo sonn sonn benn peer xoolal dëkk yi ñu nekk nii. Hmm. fii mbas baa ngi fi aadama ku liggéey ku liggéeyul ñu ngi lay fay xoolal ñun ñu ngi am treize cas tey Sénégal mu ngi ci quatre cent et quelques. Hmm. ñaan naan Macky Sall ak ministre de l'intérieur xaw ministre la santé. ministre de la santé ñun am nañ ko fii réew yëpp am nañ ko mais ministre de la santé du ay communication ak làmmeñ di wër di wax. Hmm. affaire bi jëf la ñun lu ñu leen di wax ay pratique la yu ñu gis fii. bu nga def ay transfert de technologie mais du affaire u partivisme dégg sénégalais yi dañoo sonn Macky Sall lu am ci réew moom moo ko indi toog na ci bopp sénégalais yi me du nuy mbaam du nuy jaamam ñu jox suñu réew moomu ci nii wala ci mele nit ñi sonn nañ senegal dëj yaa ngi mel ni tulleeg male da gis benn koñ juróom benn dëj juróom ñaari dëj ñoom dañoo liggéey tu sàcc xaalisu réew mi bu ko tabaxee woon ay hôpitaux oxygène dina manqué gis nga man dem naa Sénégal ñaari dëj yoo xam ne ay évacuation diggante Thiamène ak Louga la ñu dee ndax ay mauvaise route hmm. te gars yi collé tëli bi ñu ngi taxaw te lu ñu collé mu yàqu xaalis bi yëpp sàcc nañ ko yóbbu ko Macky Sall bu mu ñëwee fii hôtel bu mu fanaan xale moo ko moom am na 120 hôtel mun nga ko xool ci internet mu ngi tudd ah, how you call it Tungu uh, Soyle Tung ah, xamatuma tur bi sax même dañoo war a jël xaalis bi def ko ci réew mi mais xaalis bi ñuy jël di ko sàcc looloo sonal Sénégalais yi fii xaj yi sax dañoo am hôpital ak ambulance hmm. maa ngi lay nuyu lu bari jërëjëf Euh, Alassane xaar keneen bu fekkee waxtu yi des na ñu jël euh, ci ligne bi 88 628 98 98 keneen ku wootee biir réew mi wala bitim réew allo. allo allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. ah Adama Ndione maa ngi lay nuyu lu bari man la Mamadou Medor. ñu ngi lay fay. waaw di nuyu ñi nga bokkal liggéey bi ci defam ñëpp. waaw Adama. waaw man daal li nga xam dama ko ci wax mooy ah, nañu xam ne feebaru mbas mi Hmm. ndax feebar bi nag li ko fi mën a jëlee muy muy ñun ñi nga xam ne ñooy askan ñoo ñoo war a mën a fexe gën a hmm. góorgóorlu pour mu jógee parce que gouvernement bi lépp lu mu mën mu ngi koy def président de la république saa su ne mi ngi ci wax ci guddi mi ci wax bëccëg def ci ay conseil de interministériel bi ci waxtaan ak ñi nga xamante ñoo nekk ci wetam pour feebar bi jógee fi wax ba tax na daal euh, kilifa diine yi aada yi ñëpp ñu ngi ciy wax mais population bi ñoom ñoom seen bopp war a ñoom war nañu mën a gëm ne feebar bi mi ngi fi te li ko fi jëlee nag mooy ñi jëfandikoo wax dëgg yàlla muy masque yi di sànn di tey diglu diglay docteur loolu nag loolu bu ñu ko defee mën na mën na fi gën a jógee te te damay wax ne xam nga dëkk bi dañu xam ne Sénégal ñëpp ko bokk ndax bu watu minal iman bëgg sëré da bokk ci gëm yàlla coow yi ak xiroo yi ak ŋaaya yi matu ko gis nga problème Sonko problème moom la ndax moom moom moo ne moom moo dem xam nga liñ naan du man dong bokkuma ci bokkuma ci moo moo gën waaye bu fekkee ne moom dafa dem moom ay problème yoo xamante ni moom ak ñam ko seqal la ah, waaye di ci akki si état bi di ci ay ministre Euh, ak it ay ay. procureur ah, ah, ñu jéggal ñu tey du coowal Sonko def nañ ci wax sa xalaat defati defati tey jii mooy rek euh, lépp li nga xam ne xeetu nag événement la tey faral di yëngal réew mi te mujjantal ga daal euh, du mujj fu sori mooy ponk beeg wàllu mbas mi nga xam ne faat gi ak wàllante gi jéggi na dayo allo. allo waaw. Ablaye Faye Dakar Ablaye Faye ñu ngi lay nuyu ak waa Dakar. man leen rek lay def loolu. Mhm. vraiment jàngalu ma benn journaliste wala kenn kii am mais dama seetlu ab Ablaye Wade. Mhm. Ndiaye PAI góor gëcce Yoff ak un certain koo xam ne dafa woote léegi moo tax bëgguma tudd trompé woote toujours pas droit kooku moom c'est la même personne depuis le régime de Ablaye Wade lu mu yekkul Macky Sall amul tey mu retourné di kii Ablaye. Ah. te ñoom ñoo alors wax euh, ñu bañ rek attaqué ay nit wax nit fa mu wootee day wane ne diw la euh, kon nag mën nañu wax rek suñu soxla euh, te duñu attaqué kenn wax ci dolli itam. loolu du thème bi allo waaw. asalaamaaleykum. waaw ah, waaleykum salaam. sëñ Adama Ndiol. waaw. waaw sooy bu sow la ñu ngi lay nuyu sooy bu. waaw bu baax. waaw ñu ngi lay delloo. waay waay Sénégal nan rafetal mbir mi. ku xool lii de yi réew mi mel. xool nii àddina bi mel. waxante lu ñaaw day wax dëgg yàlla ko war a ay waaye nanu xam ne réew mi réew maam Sëriñ Tuuba la nanu xaw ni réew mi réew sëy naa limaamul mahdiw la ñu nu nekk ñaaw na fi ñu toll ni ci waxante lu bon de ku jekku sa morom rek wax sa morom lu bon xam nga ni ku jekk bari dégg ne Macky Sall lay rey nit ñi dëj yi bari na allo allo allo waaw sëñ bi nag nañu yemale wax yi parce que kenn waxu fi de déglul déglul da ngay déglu moom nee nag déglu waa da may déglu ah, danga nga may déglu moom nee na waxul ne Macky Sall moo rey waaye mën na dimbali nit ñi loolu ñëpp a dégg ñi dimbali nit ñi lépp mu ngi koy def waaw oxygène bi manqué docteur Ousmane Gueye wax na ko hmm. ñëpp yi dégg mu ne ñuy am ñu oxygène ak ñetti téeméer ak lu topp oxygène fépp la manqué ci àddina bi xoolal Brésil hmm. nga xool Nigéria foofu yëpp ay oxygène dafay manqué ñu bëgg rek jël lépp rek ba ko soog nguur gi te ñu dig la wax leen li nga xam ne moo mën a fang mbas ñu dëgër suñu bopp yàllay mani nan rafetal mbir yi réew mi ñun ñëpp ko bokk te ñëpp bëgg jàmm ji. Mm-hmm. gënuñoo bëgg Macky Sall réew mi ndax lu ne mi ngi koy def ci corona ji kon nag nan rafetal mbir yi bàyyi wax ñu ñaaw ji wax ñu ñaaw faju dara ndax yàlla dogal ku dee yàllaa la rey ku feebal yàllaa ko dogal waaye nag nanu maytonte waaye maytuwunu def ku ci nekk def lu la neex moo tax it dee gi bari kuñ booroom bu dëj la te yàllaa ko dogal nag ak sunu càggante waaye état la mu war a def mi ngi koy def mi ngi sensibiliser nit xam na ni mbas mi day rey te ñëpp a ngi ciy teg seen bët. Hmm. kon nag nanu rafetal mbir rek moo gën. d'accord salaamaaleykum wa euh, ñu bañ rek wax ci propos jaambur rawatina di ko nag dénaturer moo tax euh, yooyu dafay indi leneen ñu jël beneen auditeur ci ligne bi Alassane allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Oustaz Adama. waaw. ndongal Cheikh Diop yëpp tudd moo lay nuyu. Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu. di nuyu sa technicien. Mhm. di nuyu mboolem groupe wax sa xalaat. waaw. di wax ne réew mi moom aadama nun ñëpp ne ko bokk ka nekk ci biti ak ka nekk ci biir nun ñëpp ne ko bokk mhm. waaye nan wax nan wax li nga xam ne tey yi mooy li nga xam ne mooy jëriñ askan ndax liy jëriñ askan mooy tey jii président bii fi nekk tey jii ak lu ñu ko mën a wax ak lu ñu ko mën a yekk tey jii ci kër adduna tey jii na leen na am na ci lu bari loo xam ne mi koy doxal ci réew mi xëy na nag daara dojul suuf ku mu neex nag bu la neexee tey jii nga ne far na maa ngi moom démb tey moom mhm. loolu kenn ku nekk yaa ci moom sa sa sa sa bopp waaye nag gis nañ lu bari li mu fi def ci ay télé lu bari li mu fi def ci ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen kon tey ji am réew tey ji fokk rek ñëpp mënu ñoo bokk ne fokk gonga lii baax na kon tey ji damaa yaakaar tey ji fekk na mbas mi ñu ngi fi tey ji Sénégal yi ñun suñu bopp ñu dëgër suñu dëgëru bopp tey ji luñ ñu tere tey ji daaxal ñu ko bàyyi da ngay dégg kii nañ lañ def lii kee wax ne taxaw tey yàq yàq yàq waxa waxa waxa ba li nga xam ne yow leer na la lañ ne li ngay wax tey ji mooy maanaam lu ñuy defar réew mi ci réew mi actualité yi na déem ak tawaalif yi bari ndax am na ñoo xam ne ñu ngi fi amuñu tëli ñii amuñu ay lamp ñii amuñu ay yoon ñoo wax ci loolu waaye moo gën président moo def nanga président président dafa mu def conseil des ministres alors bu na ngeen dégg président wax ci président Macky Sall ko xam même tey ji dëkk yu bare bare bare am na ndax Dakar tey ji yéenu tey ji noo fi tey ji toll na jamono yoo xam ne tey ji assainissement bi tey ji ak mbënd meeg leneen ak leneen def daan suumaranke tey ji yu bare bare bare président Macky Sall faxaro am réew boo dee liggéey tey ji fokk wax mënut a ñàkk wax mënut ñàkk ndax tey am na ñoo xam ne ànd ñu woon a ñëw wala ñenn ñi ànd nañoo yow démb xëy na man naa am dem nañ ba am ñu lañ bëgg ñuy wax waaye nag nañ delloo si xel yi xam ne Sénégal gii nañ bëgg benn waaye wax na ko nan fii bañ a waxam lu ñaaw di filoon lebante li ñaaw toujours Birama Ndiaye wax ne bu fi kenn lebal le wala nga defi fay bor kon réew mi président Macky Sall mi ngi fi dem laaj kàttanam ndax dëj yi mënut a ñàkk bu fi président Macky Sall ñëkkul dëj day am bi fi nekkee dëj day am te dëj day continuer am président Macky Sall ko sañoon réew mooy développé ci réew yi France yeeg réew yi yëpp am yoon man na bu ma sañoon ma nekk muy yebbu di jóg ak commune bi ma dëkk mooy gën ci commune waaye nag eh, bu ñu dee liggéey nañu xam ne ñu ngi liggéey nañ ci def lu baax waaye nag maanaam wax yàq yeeg tey ji nga xam ne léew lii boo di gën yox jërëjëf ok Alassane kon bu fekkee dese nañu ñu jëliwaat keneen ba tey ci ligne bi ñu wéy ci tey wax sa xalaat allo allo allo salaamaaleykum. waaw sëñ bi. man la docteur Ngom moo ci docteur Ngom. waaw. waaw wootee fan. ngoon boog ci xara géejuwaay laay wut. maa ngi leen di nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay. dafa am ku njëkk a dugg dafa am am wax bu am solo bu may wax. Hmm. muy Chérif. Hmm. Chérif maa koy dégg surtout intervention yi. dafay rafet trop. léegi man dafa am lu may naqari mooy que réew mi nga xamante ne nga gis nga xamante ne kenn du wax lan moo doxul boobu dafa doy waar waaw nañ góorgóorlu xaalis bu ñu joxe woon bu njëkk bi ñu génne ko génne ko oxygène ak matériel médical yaay mën a faju loolu nag kenn mënu koo bañ boo rek laa amoon li may wax. Mhm. d' accord euh, xaar keneen kon ñu jël ko ci ligne bi ba tey euh, Alassane 88 628 98 98 allo. allo allo waaw. waaw na ngeen def. maa ngi ñu ngi fii ñu ngi dellu si. waaw si mhm. bu première dame la waaw ñoo ngi ziar ñoo ngi wax daal ci mbas mi vraiment ci mbas mi nit ñi nañ ci bàyyi xel bu baax nañ ci bàyyi xel bu baax euh, euh, léegi nag Mamadou Médor ñoo ngi koy déglu vraiment ok wax na wax bu am solo waaw nañu jàppalante ñu xool Sénégal suñu Sénégal waaw suñ ko yàqee waaw kenn mënu ko euh, defaraat waaw waaw waaw bu fi nekk di naan président président wante ñëpp nañu ci jàpp daal ñu respecté. mesure de barrière yi ak affaire yi vraiment nañu def euh, le tout waaw ba nit ñi bañ ñu xeeb waaw ba monde bi bañ ñu xeeb si yenn coow yi waaw yenn coow yi daal danañ ko moytu nañ ko moytu ñun jeunesse bi surtout jeunesse bi jeunes yi nañu moytu nañu moytu bu ñu leen dugal si lu ñu xamul waaw bu ñu leen dugal si lu ñu xamul waaw waaw moom rek laa bëggoon wax merci ok Alassane nee na loolu la bëggoon wax ñu xaar ba keneen ci ligne bi ñu daal di koy jël. ah mbokk yi kon fii la ñuy ak yéen ci jotaayu xibaar yi eh, dinañ ko gën a yaatal xibaaru guddi gi eh, ca njeextal la jéggalu si ñuy desoon ci liñ bi jaajëfal ñuy woote 18h eh, Marie Rosalie Ndiaye xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab laata boobu sud éducation laata ñuy gërëm itam Alassane Wade mi ñuy jokkaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëm